incha allahu rabbi ci loolu la ñuy dox manipulateurs yi dem leen ngeen noppalu ci professeur Lamine Dore moo fi ne. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah wa rahmatullah patriote yi seen mbokk la professeur Lamine daal ñu ñëw ci manipulateurs yi maanaam da ngeen du neexle parce que eh, eh, da ngeen di manipuler te xamuleen ne li ngeen manipuler dañ koo bind noir sur blanc teg ko ci internet bi ñëpp xam ko. teg ko ci bi ñëpp xam ko lu ngeen ci indi di ay fenn da indi dajj loolu mooy ñi nga xam ne ñooy manipuler ci effet bi li mu bind ku mel ne Badara Gadiaga ak ñoom bugaan ñooñu nga xam ne xamuñu dara fen kese lañ jàng seen adduna bëgg a toog ci plateau yi di manipuler nit ñi loolu dafa war a dakk sëñ bi ñoom dañ leen war a jàpp noq ci kaso bi parce que am réew mënoo ko yor di ko dox ci doxin bu baax kuy opposé wu mën ngaa opposé mais manipuler aw askan dañ ko war a interdit fii ci dëkk bi ku ko ci def dañ laa war a noq ci kaso bi ñu ñëw di manipuler euh, di wax ne FMI sunu état bii lay waxal te fekk état bii bii fi nekk ci cinq mois yi état bi ñoom waa FMI dañ leen a tàgg mu ne conséquence directe de ancien régime conséquence directe bi nga xam ne ancien régime bi fi nekkoon moom doon na ko def te anticiper anticiper wul maanaam anticiper wul problème yi nga xam ne Sénégal mën na cee dugg waaye ancien régime boobu ci lan la së sëggoon mooy naka lay def ba faagaagal ay opposition waaye naka lay def ba dàq élection waaye naka lay def ba rey askanu Sénégal mu ne ci ñooñu noonu ci seen sàggante ak seen cuune ci lañ jaare ba yëf yi doon wàcc économie bi doon wàcc waaye mu ne ci cinq mois yi nga xamante si nii résime bu bees bi moom la fi def def na ay effort ba daga yi nga xamanteni si nii na jur ko kon gàcca ngaalaama président Bassirou Diomaye Faye gàcca mo president Ousmane Sonko rapport bi dafa tag suñu ñaari jambar yi ci njàmbaar ak xarañ yi nga xamanteni si nii ko ci kanamu jafe-jafe yi nga xamné fekk nañ ko fi xam nga li ñi bind ci Macky Sall ak régime bi fi joggé moy état en ruine bi nga xamanteni si nii président Ousmane Sonko don wax te ku mel ne Badara Gaje gi mii toog démb di fen sol lu weex fen ba yàgg mbasin bi wert ak Bougane Gueye Dany kàccikat bu mag bi dañ doon weddi ne état en ruine fekkuñu ko fi léegi bi nga xamante ni rapport bi ñëw na wane na ne état en ruine lañ fekk mais état bu bon état boo xamante si ni lépp loo xam ne dignitéem la daaneeloon nañ ko waaye régime bi ci cinq mois yi mu fi def fexe na ba dégâts yooyu nga xamante si nii ci seen ciune la nekkoon ak seen ñàkk man fexe nan ba wàññi ko danaa leen tegal fii affaire bi ngeen lire ko benn par benn su ko defee ngeen xam ne manipulation yi du jàll ce ne passera pas ce ne passera pas kon euh, mi ngi nii mi ngi nii daa leer nañ dañ ko écrit noir sur blanc mu leer nañ muy dégâts yi nga xamante si nii waroon na koo jël maanaam régime bii moom moo fexe ba dégâts yooyu amul te xoola ni ko mimi touré waxe rek effet bi du leni lek ta du leni nan day ableb khalis kep suñu lebal suñu khali ab khalisam nak amna droit sax conseiller nu ne bu ngeen ko defon ni wala ni waye ni ni lepp khalis bi nak te war koo fay ñun ñooy xool fi ñu koy dugal jural intérêt ta effet mi bu sañon ci leb ndax lepp giñ koy leb intérêt la te état bi ci yoon yu mu jaar ni bu ci continuer ni Sénégal dootu soxlaati te arrangé wul FMI te incha allahu rabbi ci loolu la ñuy dox manipulateurs yi dem leen ñu noppalu ci professeur Lam mi ñu doon moo fi